man mii sax di wax na ma parce que xalaatu ma woon instant boobu équipe boobu bu mag bi nga xamante ne ñëpp ràññee nañ ko si àdduna bon euh, ñu commencé noonu débuté di jugoo ak daanu joué di prêté ñu dem Belgique waaw maanaam jaar naa Belgique jaar naa dëkku naa di Arabie jaar naa Chine def naa. ah joué nga Chine waaw ñaari ak ñaari année. Mhm. ma jaar Hongrie jóge fa jaar Turquie. Mhm. de France. Mhm. waaw. France ban équipe nga fa joué. Ajaccio laa nekk Ajaccio waaw mhm, Corse. Corse waaw. laa ma jóge fa dem euh, Angleterre. Mbaye Mbaye est-ce que yow si sa caractère. impression la parce que dama damay damay toog ni may toogee ni dama mel ni benn Sénégalais bu xamul rek bu lay séen di bëgg xam quoi. di laajte Mbaye est-ce que toi sa caractère joueur bu naqaree gérer est-ce que j'ai l'impression que danga am benn tu un peu un peu de El Hadj Diouf en toi là El Hadj xam nga neexut a gérer booy boobu. Ah? <laughs> est-ce que yow aussi amuloo amuloo ba xam nga dafa am jour yoo xam ne dañu am dañu am dañu am caractère bu bu fort quoi. est-ce que yow doo joueur bu mel noonu ba nga xam ne des fois doo mën a yàgg si yenn équipe yi. waaw loolu xam nga man bañ quoi. waaw c'est lan ngay bañ. waaw man dama ku may. may tuuteel. bëgguma mhm. ko may bëggu may yemale. dama mhm. bëgg koo xamante ne daf may jox cër ma jox cër. Mhm. parce que man amoo problème quoi man ni ma mel ni noonu laa mel si terrain. mais su ma gisee yenn affaire yoo xamante ne rek damay xaw a am. damay damay gis suma bopp. Euh, du kuy def problème genre comme créer problème si vestiaire yi ou bien xam dugaluñ la nga nga pété câble loolu parfois jour yëpp day dal am ñoo xam ne dañ ko génnee am ñoo xam ne dañ koy mhm. génnee mhm. parce que am ñoo xam ne dañuy koy gis dañ koy gis waaw tu man su meree dañ koy gis su ma footballul nii rek koy gis man su ma la rusee nag bàyyi mu sedd wala nii mais su ma la rusul moom parce que ñun dafa am lu nit yi xamul quoi si football bi mhm. ngir saa ñuy signé ay contrat dafa am signé yoo xamante ne contrat koy signé yoo xamante da ngay ñëw pour football. Mhm. pas pour ñëw pour. waaw pour toog ci banc bi waaw. parfaitement. bien ne jour équipe bi booy bi ngay ñëw du coach bi moo la fi indi mais bi mhm. moom xam moom mooy diriger am na ay joueurs bi nga xamante ne. ñoom ñooy ay préférés. ñooy préférés te équipe bi suude na yooyu day am. Mhm. mais man loolu univers du ma ko liggéeyati. man président yaa ngi fi indi. ñu waxtaan damay dama ñëw. regarde man fi ma jógee nii da waroon football regarde man dafay but fii ñëw ma fi pour toog non non on te da ngay joué xam nga. may na exemple am naa problème boobu ak bi ma nekkee Bruges. Mhm. Belgique bàyyi nga la te saa jël meilleur buteur. ah Bruges ñëw dañ ma soxla def kutoo ko. Mhm. wax wax wax wax dama sa Ligue des champions bi il faut que ñëw parce que ñi fi nekk am expérience ay boy mhm. lañ des trucs comme ça man ba may dem sax jet privé lañ ma jël tu vois parce que yaakamti woon nañ ma si situation yi noonu. ba ma bàyyi ba ma ñëw. ndeke man man état xaw ma na coach yu il me vaut mu loolu baax. man mhm. président moo waxtaan suma moo teg loolu si table moo def lépp te président mhm. moom moom équipe mooy. dëgg la dëgg la ma ñëwee tak tak joué wu ma. Mhm. trois fois quatre fois joué wu ma ma wax mu ne ma yaa ngi doog a jóge équipe nationale mooy moment coupe d' afrique bi. waaw ma ne ko ñu ngi doog a ñëw mais am na ñoo xam ñoo ñëwoon noonu. pourtant ngi joué. ma ne bu ma paree coupe d' afrique deux semaines la am loolu du vacance bu rëy boo xam. dëgg la wax nga mën a xaaral. non c' est pas normal ma ne ma waa da nga ñëw fekk équipe bi saa yi da ngay da ngay xaar ndànk daal bul précipité bul yàqam ci diir ma ne ko man aw temps. man du xale. waaye man fi nekk ñi ñëpp je le respecte naa mu si boppam ne ma fii man maay diriger a yëkkati ko man du ma jour xale yi ngay école football yi ngay. xam naa li ngay kii quoi. waaw ma ne ko non non man ko après tegal ko xam nga. jërëjëf loolu mooy ni suma premier exemple problème bi am na ñëpp gis nañ ko Sénégal ma toog sept mois huit mois. Mhm. jeu moom mu pénal pénalisé moom. waaw ah, léegi léegi léegi Mbaye foofu laay taxawee Mbaye suñu penalty bi nga dóor keroog. est ce que duel moo indi problème bi tam. pas suñu penalty mais est ce que. penalty boobu exegul penalty bi fin bi la sax. parce que loolu man début bi la am problème ak moom. ak moom gisee après jour boobu dafa ñàkk a pexe dugal ma rek. jour boobu dafa ñàkk a pexe ma mer nag. ma mhm. créé penalty moo tax ma jël ko. waaw xam naa moom ah, xam naa mooy que dugg naa et créé naa situation ba penalty am maa koy dóor parfaitement maa ko noonu lay demee parce que man avant moom après neexatul woon mhm. avant loolu di am mhm. parce que man li ma taxoon ñëw mooy Ligue des champions mhm. te Ligue des champions bi man joué wu ma joué wu ma alors là damay gën a mer waaw da ngay gën a mer waaw xam nga ku nekk da ngay xool sa situation parfaitement xam nga dëgg la bon mu yàqal ma benn ay mois benn année boo xamante ne man mun naa ne yàlla moom suturaal parce que amoon naa contrat ak Galatasaray dañ ma pété woon toujours wala mënoon na ñaaw. mënoon na ñaaw waaw bon as yéen lay def problème yoo xam ne dañ lay yàqal man nag genre détail la am man du ma ko bàyyi quoi. di nga kii ma ne gannaaw mais tamit di nga gis dinaa la bëggal quoi. mais léegi man question bi ma bëgg a laajte. Euh, mooy que est-ce que yow euh, xalaat nga ni par exemple gu effectivement joueur bu jël penalty ne da koy dóor mu raté ko mm-hmm. parce que penalty li ñu naan ku ko dóor moo koy raté. Mm-hmm. mu raté ko mm-hmm. est-ce que kooku euh, coach bi am na droit. même ci ci euh, ci principe euh, sanctionné ko parce que il a rate un penalty c'est comme si soo jëlee penalty bi da nga koy dugal par force est-ce que loolu yaakaaroon ni euh, abus la un de sa part. non loolu amul loolu amul si football bi. mais moom daf ko def. daf la ko def moom bi nga dóoree penalty bi kon PSG nga raté ko. Uh-huh. daf la daf la teg c'est comme si faute bi yëpp yow la ko teg. mooy xam nga moo tax mu def loolu moom. parce que penalty si si dafa am guddi. ku ko attitré waaw waaw. dañuy joxe première joxe deuxième tireur. waaw parfaitement. comprendre même coup franc tout ça. Mhm. léegi man nekk moon première tireur. su mhm. wàllum bu bi ma duggee capitaine bi moo waroon dóor. dóor waaw absolument loolu avoué naa ko moom moo war a dóor. Mhm. mais comme que dama créé affaire bi. du ko jël ma jël euh, bal bi mais ma koy dóor. parce que en tant que là bëggoon naa situation yi changé. par rapport man ak moom suñu jotee. mu neex. par rapport ak équipe bi kontaan. dëgg la mu def changement. Mhm. parce que mentalité boobu ma jël bal bi. Mhm. te man ku ñëpp Sénégal xam nañ ne dañ kese toog di ko waxtaanee. Mhm. que mbay penalty rek la mun doon. tu vois et vraiment. que ni da nga koy dugal dama koy dugal. mais nag. ah ah ça arrive yàlla dugal ma ku dóorul moom doo mën a xam. moom parfaitement parfaitement. tu vois ku nekkul si stade Ligue des champions stade bi fees dell. nii nag mun nga yaakaar ne peut-être comme ni nga waxee rek dóor penalty bu dee dóor nii sax foo sax dafa métti. waaw mm-hmm. après ma ratee ko bi ma ko ratee mu métti na ma loolu parce que li ma xalaatoon ak ni ma bëggoon def yàlla sotti lu ko anyway. mais mais léegi est mos fii si benn équipe fii. non avant nga joué sur l'internet. Sénégal mosuma joué benn championnat à part cadet ah, man nag man nag pour man danga nekkoon di joué si. Euh, musuma joué fii dama teel a tukki nag après. Mm-hmm. loolu moo tax mu mujj ma joué fii championnat féminin. donc yow tu as été formé en Europe. waaw euh, Juventus. waaw Juventus ah ok d' accord. léegi pourquoi nga nga nga parce que j'ai l'impression que ça a chuté. loolu chuté boobu ngay wax. waaw moom mooy chuté problème bi ma dem Bruges. waaw suñu parce que ci benn année boobu loolu la amee problème. Mm-hmm. parce que instant ma jëlee meilleur buteur waaw xamoon naa gisoon naa lu bëri quoi maanaam ay équipe yi di xaalis fii tout ça. Mhm. parce que c' est normal. Mhm. maa nekkoon troisième meilleur buteur euh, si monde bi yëpp. boo mhm. doon wax Messi teg si Mbappé euh, Kylian euh, la woon. te loolu defe naa man après dama ko tuuti loon sax mais dafa doon lu rëy quoi. parce que saa boobu ay Cristiano Ronaldo nga xamante ne ñeneen ak ñeneen ñëpp maa leen ko doon bu tu vois benn saison xam vraiment saison spéciale li ma métti rek mooy li ma jugee foofu dem fële loolu moo ko yàq. waaw moom moo moom moo cassé ses confiance quoi. am ah, ko moo tax affaire boobu métti ma de trop foofu moo tax problème boobu am. après nga delluwaat Turquie ah. si laa delluwaat Turquie. Mhm. si saa si. Mhm. joué nga bi nga delluwaat fa. ma demee si saa si dama joué. Mhm. te joué bi dafa métti sax. parce que dama dem fekk Turquie Galatasaray jël attaquant bu mag de yow xam ne muy Falcao. waaw Falcao waaw. xam nga comme ni ma lay wax rek man su ma gëree ak suma ma fit man ba may ñëw mënoon naa ne sax. dara na ma parce que peut-être mesure yi day métti wala loolu. Mhm. mais dama ñëw ak benn gëm-gëm bi nga xamante ne su ma ñëwee dama koy éliminer damay que tur bi am naa ko li ma fa gagné ma fa rapport ma def ko. kenn def ko mooy sa rapport ak euh, kii ak euh, équipe nationale est-ce que danga nga mës a rêvé bi ngay nekk Galatasaray parce que en deux mille dix-huit nga ñëw équipe nationale. waaw ah, yow da nga mës a pour équipe nationale wala amoon nga possibilité peut-être jouer pour beneen dëkk. non man mosuma laal joué benn dëkk. Mhm. Sénégal laa mos a rêvé pour parce que. kenn mosu la proposé pour jox la nationalité pour nga joué benn dëkk. waaw kenn mosuma proposé loolu. amoon naa nag na euh, exemple. Mhm. pour jël nationalité. Mhm. mais loolu maa koy kaasal sama maa koy wut xool sama nu mu am nu mu koy kiiwee. mais ñoom kenn mosuma ko proposé wala loolu te man it su ma ko proposé du ma ko def man soxla ma ko woon sax parce que. sama réew mooy dama doon gis ñoom El Hadj Diouf bu ñuy football. Mhm. nu ñu meloon Sénégal ñu doon leen toppee. saa yi Amari Camara. foofu foofu saa yi yow tam. xam nga Mbaye nag da nga bëgg a noos de. non non non non non non topp bi non non Mbaye Mbaye Mbaye bës bi ñoom. non ba ba xam nga ñoom ñoom El Hadj ak ñoom Fadiga ak ah. ñoom nga waxee ne gars topp xam naa nga naan wu Dakar affaire bi noonu neex lii moom saa yi bu ma nekk duggee équipe nationale damay rek <laughs> xam nga émission bi ci ne mooy amul technicien amul dara ah, am yoo xam ne sax mun naa ko dagg boo bëggee après mais non ni nga ma waxee yoo ko ndoog yow ñoom juuf ak ñoom kii nga doon xool dafa neex loolu na de dafa neex parce que ñoom moment bi ñuy football waaw ñun bu ñu gisee juuf oui ak parce que dañuy daw topp leen dëgg la tu vois et man dama gëm bëggoon sax du boobu moon tardé waxuma la ak équipe nationale da seetaan yi dama doon seetaan damay daw ma liggéey ci bambam du ma jël du ma jëndee billet. billet ñëw toog waaw. et kon tey loolu bëgg nekk. ñu mel ni ah, ñoom da ngay bëgg rayante pour nit yi nga bëggee nga football ñu lay seetaan tu vois loolu. bi bi ñu la njëkkee woote équipe nationale ban naka la demee. waaw man bi ma man euh, gi nga moment bi ñu dem coupe du monde waaw Serigne ma njëkk a convoqué. waaw. Euh, ma jot présélection Lamine Diatta moom moo moo contacté woon. Mhm. ne ma may ça va affaire yooyu soxla sa email dañu soxla sa waaw say coordonnées sa kii yi des trucs comme ça. rek ma xam. man bootaale woon naa ko quoi. parce que dama tombé woon saison boobu maa ngi maa ngi def saison bu baax. bu baax waaw bien noonu ma jox leen ko. ma jot présélection pour affaire du monde bi. yàlla def teew ma. parce que présélection dañuy def. waaw 30 waaw après ñu dindi la si quoi. waaw boobu laa ne gars yi seen bët si man. Dakar waaw parfaitement. bien saison si laa def maillot bi. si laa def nii gars jël la indi la si laa def Coupe d'Afrique tout ça xam nga voilà. ma kontaan loolu bi ma jotee loolu si saa si ma wax ko sama yaay tout ça parce que mais saa bu mënoon ñaanal di wax rek. dafa lay nga dem équipe nationale a parce que ñoom loolu la ñu am quoi. ah la et puis loolu rek nga fi am loolu léegi bi nga ñëwee équipe nationale.

Cheikhou nag laa ko doon miinante. dañ doon demoon nañ doon dem kër vraiment lu ma ñëwee musique dafa ma dalal. Cheikhou Kouyaté kon moment boobu la ma gars yi gën a sentir bon loolu joué moom moo waaw ma nekk bu ndaw et que ñëw moon nag bi ma dugg see ñu bëri am na jot naa leen xam. avant effectivement donc c' était facile ko baax tamit waaw gars yi moom foofu moom ñu ñëw moom lay yaatal moom vraiment parce que. nekkul comme Europe yéen a bokk làkk bi ngeen di wax da ngeen di xamante. waaw da ngeen effectivement ñu bokk ñu bokk kii. mais xam nga xam nga équipe nationale Sénégal ñaari ñaari ñaari équipe la am na ci benn boo xam ne c' est des c' est de Dakar la <laughs> ah ñu bokk ki ak ñoom ñoo xam ne. se est des ñoo xam ne waa wesh wesh yi quoi. <laughs> est ce que doo am problème mu compatibilité. non di nga ah. boo la neexee équipe nationale ah. kon yow boo nekkee ci équipe nationale kan kan mooy yor kii bi ambiance bi kii bi quoi ah. xam nga xam nga loolu dafa am solo euh, dafa am ñoo xam ne man no un peu noonu laa mel quoi boo nekkee fenn. si si si si si groupe day am kenn koo xam ne moom mooy. voilà mooy neexal affaire yi. Eh, wala yow wala gànn gànn gay moom xam naa ne. fekk rek lay def waaw eh, man gànn su ñëwul daf may naan doomu ndey doomu fii dafa wéet tu vois eh, la même chose Cheikh mhm. que tey gànn nit koo xamante ne dafa free. dafa free waaw waaw moom moom moom vraiment. da ngay gis bu jeex après jeex parce que tamit nit ku nekk la yàlla bindee. dëgg la dëgg la léegi lan mooy lan mooy sa tu vois lan mooy sa rapport ak Aliou Cissé. waaw Aliou Aliou man ak. Mbaye Mbaye Mbaye attends balaa ma kii Mbaye. ci oto bi lañ ne de amul kam technicien amul dara. wax rek man je suis free dama lay ah. expliquer quoi parce que man ma waaw man moom ku ma xam ne ne moom. lu ma ragal wax toppee jooy. waaw du ma wax loolu loo xam ne amul parce que man bi ma ñëw équipe nationale tey mënu ma wax kenn moom indi fii loolu Aliou Cissé. waaw xam nga. mënoon coach. Mhm. même su ma nekkee dugal but yu bëri yoo xamante ne ñëpp mën a réclamer Sénégal. bu ko doon mhm. gis nii tu vois euh, moom bu ko neexoon mën na sëgg tamit. la ah mais moom moo woo moom muy équipe nationale ko si remercier dama si kontaan. dëgg la tey mënoon na ko gën a dëgëral. dëgg la bi ma ñëwee teg sama tànk équipe nationale daf ma woo dugal ma si vidéo du ma ko fàtte. Mhm. sama première sélection. wax ak man. comme ni nga may wax nii rek. ma demal may jàll international. te boobu man ñëwaguma. waaw nekkaguma l'international. Mhm. parce que gars yi ñu mënoon wax booy boobu ak Wally Seck nii. effectivement comme booy xam xaw ma kii yooyu noonu. waaw ah. yow xam nga fi calmant la des trucs comme ça. effectivement bu ma gars yi jox. tu vois et que Mbaye bad boy la Mbaye bu génn Mbaye baadu kii équipe bi wala des trucs comme ça xam nga yooyu da nga doon dégg ñu mu xam ma ne ko grand lu ma wax loolu laa leen defal li ma sant loolu laa leen defal fi indi loolu moom jeexee jeex comprendre mais à part man moom amuñu parce que loolu day am ci coach ak jour mm-hmm. ma am coach ak jour yoo xamante ne dañuy am déggoo ba nga naan papa ak yaay ak doom la dëgg la loolu amuñu ko mm-hmm. waaw man ak moom amuñu ko duñu déggoo lu bëri ah, ah, lan moo tax doo leen déggu waaw parce que man comme damay revenir li ma waxoon sànq man man damay respecté nit respecté ko waaw da lay jox cër waaw man dama yëkkati moom ma yëkkati la tu penses que du la yëkkati de ah, temps en temps. maanaam man dama soxla loolu quoi. man jour boobu laa quoi. Mm-hmm. man il faut nga ne la. Mm-hmm. xam naa li nga sama tànk tubéy. waaw mais mu munul damay def lu mu munul. ci mm-hmm. wàllum bu def ku may jox cër bi nga xamante ne tey moom ngay jox ñeneen ñoo xam ne su may morom lañ te maa leen mag sax maanaam après foofu su ma jaat football sax jaaruñu ko ci wàllum bu wax euh, tey loolu man noonu laay demee ko mais est-ce que est-ce que est-ce que est-ce parce je pense que tu es tu es performant. en championnat qu'en équipe nationale est-ce que loolu. loolu loolu dëgg la. waaw est-ce que du loolu moom moo peut-être tax. Ah. Euh, comme il se dit que bon. Euh, parce que mbay tamit amul mbay mbay doo mën a nekk équipe nationale te toj taal ko caaxi. waaw mais xam nga rek grand dafa am li nga xamante ne fii de la réalité Sénégal. Mm-hmm. Euh, muy lan man man. tu penses dañu takk sa tànk. non pas takk sax mënu ma waxee mu leen takk suma tànk mënuñu ko takk. Mm-hmm. mais fii dafa am réalité boo xamante ne ñëpp xam nañu ko. Mhm. waaw équipe nationale peut être boo dugg see rek gars yi ñu lay xaar. Mhm. comprendre nga. dëgg la euh, man ma bootaale woon loolu suma bopp. Mhm. moment bi muy ñëw euh, c' était pas facile. dëgg la. Euh, moom moo doon titulaire sax. waaw waaw moo doon titulaire. y avait Moussa Konaté. moi xam nga. et que ñu dugg ñu ñëwee fi bi nga xamante ne tey. ñëwuñu comme première nga bëgg a wax xam nekk. joker joker nga nekkoon quoi voilà voilà. Mhm. Mhm. nit sax. Mhm. maa ne benn match sax premier match sax. dal si but. loolu day am waaw waaw day am waaw. loolu du yàq du mënin. du mënin dara yàq mën ku xamul rek. waaw waaw xam naa xama ma xam bu baax li ngay wax. mais ñun dem nañ Coupe d'Afrique. ah. bi ñu Mbaye Niang moo doon joueur bu titulaire. titulaire te façon occasion bu ne te ah, moom ku ko waxoon di nga te yow ku la joué la huit match nga taal mais kenn ñemewul nekk. mais dafa am loo xamante ne ay moment la yoo xam ne bi. dëgg la parce que doo ko buy douté quoi loolu moom mooy manque de confiance. te loolu coach bi moo la koy jox. ak entraîneur kenn la ko jox loolu coach bi. la comprendre nga hmm. tey bay Niang man suñu ma sax du dugal si quatre matchs. Mhm. du ma ko gëm parce que c' est un grand attaquant. Ah, dëgg la xam naa ko bi muy nekk Turin di nekk Turin. et que moom aussi loolu la ko subir. parce que moom aussi xaw ma nekk si boppam. mais dina ne si ginnaaw. waaw am na attaquant yu fi nekk. waaw dëgg la dama war a dugal ma dugal damay génn. damay génn waaw la lay indil. waaw waaw wax nga dëgg wax nga dëgg. parce que man daf may dal. waaw parfaitement. comprendre ah am na suma ginnaaw ñu fi nekk il faut ma. il faut ma assurer sinon rek day. di leen may charge di leen may charge état doon dem bay sax doon raté ay bal yoo xamante ne. da lay man dama naan kii normalement bu doon ay reen ak ay affaire da koy tax. da sax du moom parce que lii moom da koy dugal parce que je le connais. Mhm. voilà ak ah, kon am na loo xam boo xoolee sax di nga xam ne loolu day arrivé jour parce que dina nekk si moment yoo xamante ne kii confiance am. dëgg la dëgg la kii am kooku day mel du moom. dëgg la parce que su ma teelee su ma dëkk su may football ak damay. dafay mel ni dafay yomb ko barke alxuraan sama ba nga yaay man bu may football yenn saa damay dugal. mais am nga jabar de yow. Ah? waaw am naa jabar. ñaata jabar nga benn laa am benn. di la sénégalaise. mais xam nga des fois mooy dégg tey moom yi nga xam ne moom la seet damay xool internet bi. Uh-huh. sa photo sa soxna. def sa photo photo kii photo gànn ak euh, mel ni ak Keita Balde mel ni sénégalais yi laal. dañuy clash de. dañ leen di clash de. waaw loolu nan ngeen koy dundee dañ envoyé koy dundee. non damay rigoler rek damay reetaan rek bàyyi bu jàpp parce que damay naan mooy c'est normal ñoom dañuy gis ne tey euh, sénégalais yi rafet. macha allah mhm. xam nga ñu takk tubaab. waaw mais man je ne pas euh, euh, nu mu tudd problème Gana Gueye Keita. seen seen seen vie. seen vie la waaw mais man moom. waaw am naa plein droit wax leen sama vie lu tax tey. man mais mais nank lay daw quoi voilà lan moo la sa rapport sa vie privée la mais lu tax nga am jabaru tubaab ah jabar tubaab jabar la jabar yëpp jabar la waaw mais comme dañ koy waxtaanee mm-hmm. ma ma bëgg la laaj lan moo la liyee ak moom man bi may dem bi ma tukkee yàlla dafa def ma xamante ak suma jabar mm-hmm. ñoo xamante mu doon jigéen boo xamante ne tey li ma gis si moom dama ko gisoon si matière Afrique waaw bëgg bëgg ni ku ñuul quoi mm-hmm. bon bi ñu xamante du woon comme ni ma mel tey c'était 2014. waaw yàgg na ah 2014 am na maanaam mënoon naa ñëw Sénégal sax duñ ko faale xam ah nga. te moom ci jàpp. waaw ah, moom daf ci jàpp maanaam jàpp si si si si jàpp si si dafa jàpp ci dafa jàpp si sama. matière de football. dëgg la ma nekk sa ginnaaw quoi épaule la. donc voilà parce que moi moom man soxla woon naa nekk si di voyage di ma ñëw di ma fekk fi may nekk. Mhm. di may affaire ay cadeau yëri fii laa lii xam nga. xam mhm. nga tubaab rek bu xam naa waaw xam boobu si ñëw gu moo professionnel genre au niveau. genre maa ngi doon CFA. Mhm. après juste nit na dalay boole nit rek yenn saa yi affaire yi pour tëj yaa ngi woon yaa ngi Angleterre. Mm. Euh, kii nu mu tudd équipe bi. maa ngi woon West Bromwich. dañuy dem deuxième division. waaw da ngay toog. da ngay dellu Turquie. Ah. est-ce que yow niveau bi nga toll boo bëggee relever défi yëpp. Ah. est-ce que est-ce que di nga voilà est-ce que Turquie du ko du euh, est-ce que kii deuxième division Angleterre. Ah. Euh, c'est pas trop voilà. gàtt tuutiwul quoi pour que un joueur de de de de de statut. man comme li wax dama wax ne ne man su ma jëm boobu. Mm-hmm. man maa ne joué wu deuxième division là. Mm-hmm. am na samay morom yu fay joué nag gënuma leen quoi. Mm-hmm. waaye pas pour réyal sa bopp wala dara ku nekk mhm. yaay yaay choisir parce que man dama am deux cent contrat Galatasaray mhm. su ma nee joué deux millions ma dem joué premier euh, super league Galatasaray àdduna bi ñoo xam nañ ko wax fa dëgg euh, lu may fay ma nee ma ne du ma joué foofu euh, deuxième division mais Ismaïla Sarr joué division ba yéegalaat ba fexe ba ñu ak moom ak ñeneen. waaw ba yéegalaat aussi équipe am. waaw xam nga yàlla dafa dogal. waaw yéegal équipe moo gën a métti. waaw loo tey situation Watford c'est pas la même chose ak situation West Brom Ismaïla Sarr am parce que kenn wax ne yéegi bi mën na yéeg daal parce que xam nga équipe bi loo boo wàccee deuxième division pour nga yéegaat loolu kon tey man du ma xool si Ismaïla Sarr parce que maa moom euh, bokk leen duróomuñu bokkul Ismaïla contrat nekk Watford Watford moo ko moom moo ko moom waaw yow yow Galatasaray moo la moom moo la moom man je suis obligé de retourner sama club mais moom Ismaïla Sarr exemple su ko wat sa wat foon ne ko yow ñun bàyyil ñu la. day toog par force. surtout que bu ñu nañu woon toog deuxième division. ah oui lu a bu ko amoon bi mais gars yi bañ. gars yi dañoo bañ dañ ko téye condition bu ñoom ñoom ah. amul loolu. bu ko amoon may jaay léegi dafa war a xool Ismaïla Sarr équipe bi yéeg na c'est pas mission naa yéeg dem signé contrat trois ans ak West Brom. mu wàcc sa troisième division dëgg la dëgg la est-ce que sama carrière kan moo ma siy génneewaat. waaw parfaitement tu as raison. Ah. voilà yàlla na nga dellu si waat incha allah balaa Coupe d'Afrique bi ñu dem jël Coupe d'Afrique bi pour une fois. indil ko Sénégal ah. kii doon tour avec ak Mbaye Mbaye lan mooy sa dernier mot. waaw maa ngi maa ngi rafetlu invitation bi quoi. Mhm. parce que gis naa suivre naa affaire bi bi nga kii Waly. oui c'était cool defe naa ak Balla Gaye su ma. waaw ah, waaw Balla Gaye waaw waaw waaw. c'était cool quoi. waaw kon tey bu ma woowee damay si damay damay damay ñëw quoi. mais coowu pelouse bi la coowu coow li ñu ne stade yi baaxul Sadio génn. Euh, waaw Seydou Kouyaté Cheikhou. waaw waaw affaire bi coow li génn ministre bi génn. Mm-hmm. est-ce que yow si équipe nationale équipe bi fu mu toll. xam nga Mbaye Dia dafa weex dugg moom. waaw mais Mbaye waxal rek fu mu ne comme comme nekkoon ci. sélection waaw loolu ñëpp teg nañ seen bët lu yoon Sénégal amul amul stade bu baax. bu baax loolu du yoon ak fii. fi fi fi toll fi mu toll. boo wax ñu ne Sénégal moo nekk première équipe boo xamante ni moo gën a rëy yenn saa ñun dañuy mokkee sax dañuy tooñ. tu vois ndax seen pelouse. ndax pelouse tu vois ne ñu ngi defar benn ñu ngi ñaan yàlla mu gaaw. mu gaaw sotti mais sonn ngeen de ah. et yu métti parce que mën ngeen ci gaañu mën ngeen ci def. bu pelouse bi baaxee Sénégal dina sa Brésil ku lu Brésil fii. donc yaa ñoom Sadio yéen bokk wax. non c' loolu yoon la parce que joueurs yi nekk Sénégal mhm. yi mën koy gars yi il faut pas nañu football niveau bu ñuy football gars Sénégal. waaye mënoo ñëw fii ñu ci ay terrain yoo suuf suuf c' est kii yi fi nekk yëpp club nga dal yi ñuy joué. waaye parfaitement amul mu leen dem Afrique booy dem di gis joueurs yi. amul amul amul man maa ko wax. non amul Chelsea imagine toi yéen joueurs du Sénégal. ma ne Chelsea Naples Paris Saint-Germain. Euh, Galatasaray. Euh, Liverpool. ñaari joueurs ñoo mais te yu mag yi France Italie je sais. Sénégal moom mooy équipe boo xam banc bi laa la wax ñi toog si banc bi. rek équipe bu mag lañ. buñ demoon grand Cameroun capitaine lii. je na Duga Nigéria seen équipe bi. di takkaay français Galatasaray ñu jox leen gëdd. waaw jéem sa Angleterre di leen jox gëdd mat kenn bu ñëwee sax sa waay duñ cee lu bëri ah. bon fu <laughs> ma jëloon marchandé gàmm yi nga xam gàmm yi lépp <laughs> moo doon tour avec ak ak Mbaye maa ngi leen di gërëm di leen sant et à <laughs> soxla oto bu rafet méngoo ak jamono ànd ak noflaay ak karange oto bu wuyoog say bëgg-bëgg ak say yitte Toyota Starlet bu bees bii moo méngoo ak li ngay wër ànd ak njëg bu xéewale à partir de huit millions neuf cent mille francs CFA rek waaw waaw dégg ngeen bu baax huit millions neuf cent mille francs CFA ci Toyota Starlet bu leen ko kenn nettali daw leen gaaw ca Toyota bu CFAO Sénégal asalaamaaleykum mbokk yi namoon naa leen lool waaye xam naa ne lool lu ma leen namm namm yéen a ma raw wala ma law leen kon nag uh, nuyoo bi gën a ànd ak tey bi gën a ànd ak yar laa leen di nuyu mbégteeg bànneex laay am boo leen gisee lii nag yéen xam ngeen ko dañuy waaj nag loo xam ne ni yéen ñëpp yéen a ngi ko doon xaar kon nag dañuy dem dëkk boo xam ne dëkku cosaan la dëkku aada la waaye dëkku valeur la dëkk boo xam ne uh, bu ma tuddee tur bi rek su ma nee dàll seen xel yëpp dafay daal di dem dëkk boobu nga xamante ne rek moom mooy ngaay mexe uh, ku wax ngaay mexe nag xam dëkk cosaan ak aada waaye dëkk boo xam ne tamit fonk nañu lool li nga xamante ne moom mooy consommer local kon nag tey foofu la ñuy ànd sama chauffeur nag ñëw na ah Ablaye jël si na ma dañuy daal di ànd ak moom ñu yóbbu ñu rek euh, garage ñu daal di jëm suñu horaire bi daal di dem topp leen ma inyama mi ngi wërelu ci biir àll bi li baaxul jaluñu nelo lekkuñu dara metti mbokk yi gën nañu nag bu maraîcher bu maraîcher fii la ñuy jëlee nag euh, suñu horaire bi pour dem dëkk boobu nga xamante ne euh, moom mooy ngay Mékhé waaye ku gis euh, tey boo maraîcher nu mu mel ak événement tabaski bi oto jafe na paas yi yokku na te xam ngeen tamit nag feebar bi mu ngi fii ba léegi ni jógewu fi kaa yi mu ngi gën a yokk moo tax rek dañ leen di wax naan nañu gën a fagaru dal di nag raxas suñuy loxo ba mu set takk masque yi dal di nag fagaru bu baax a baax bi te xam ngeen tamit feebar bi dafa bëri ci dëkk bi li may def rek mooy damay daal di ànd ak euh, sama chauffeur ak calge moom mu yóbbu ma ba nga xamante ne rek moom mooy ngay Mékhé xamante ne moom mooy Ngaye Mékhé moom mooy dëkk Ngaye Mékhé gis ngeen ko Ngaye Mékhé nag buñ ko waxee rek sa xel dafay daal di dem ci dàll Ngaye Mékhé parce que ku wax Ngaye Mékhé wax dàll waaye ku wax Ngaye Mékhé tamit daal di wax li nga xamante ne rek moom mooy yérey Ngaye Mékhé Ngaye Mékhé nag nekk dëkk boo xam ne dëkku artisanal la waaye nekk dëkk cosaan ak aada dinañu découvrir tey li nga xamante ne rek moom mooy historique Ngaye Mékhé turu Ngaye Mékhé fan la jógee ñan ñoo ko sanc lan mooy seen plat traditionnel waaye nag li nga xamante ne moom mooy valeur démb ak tey lan moo ko wuuteloo dañuy ñëw rek daal di ñëw ànd dem xooli ji ki nga xamante ne moom moo ñuy dalal ci biir dëkk bi nga xamante ne moom mooy ngay Mékhé eh, si seen émission horaire bi. yaakaar naa ne nag eh, fii la ma waxoon xam naa damay dem ba fee rek laajte ñu àndandoo dem xool waaye bu leen fàtte nag seen masque takk leen ko. salaamaaleykum na ngeen def waaye nañ ci jàmm sëñ bi na def. ça va euh, ngi fi waarikàlla fii laa doon laajte villa artisanal ah fii ok ah fii la tàmbali ah na de waaw <laughs> yow ci artisanal bi nga bokk de jërëjëf kon merci beaucoup jërëjëf waaw kay waaw sëñ bi noo def. ñu ngi ziar bu baax ça va alhamdulilah ñu ngi sant macha allah ñu ngi fi ñu ngi si jàmm ça va ñu ngi si jàmm alhamdulilah macha allah. maa ngi jéggalu de euh, naa trop. effectivement parce que ba boo maraîcher naroon jël horaire bi. Euh, faf nag oto jafe lool nag. Mhm. naqare am xam nga tabaski bi bu jub soo sonn ngeen nag. déedéet wallaay yoon bi moom xam nga macha allah moom neex ah. avec l'autoroute à moom dina yombal lu bari. mais nag lu mu gàtt gàtt Dakar fii da ngay def 130 kilomètres. Mm. loolu déjà ak naaj bu tàng bi ak sa coono. Mm. waaw vraiment volonté ak yéene. wane li nga xam ni moo am ci Sénégal am ci gox-goxaat yi moo tax ngeen jóg. ñu leen ci sant di leen ci remercier bu baax aussi. di la wax ni nag ngaa ngi nii ngeen dal ak jàmm. waa ngeen dal ak jàmm bu baax. li wax ni moom boo gisee fii ñu taxaw. Mm-hmm. muy entrée bi di porte Ngaye Mékhé nga gis ni mu mel nii ci wàllu yére yi aar yi nga xam ne suñu yaay yeeg suñu soxna yi ñoo koy liggéey mm-hmm. kon dangay xam ni véritablement li ñu doon wax ci ngaay mm-hmm. doon ko wax ci ngaay dëkku artisanat la boo liggéey ci bunt bi rek mm-hmm. daf lay daal di wan boppam nga xam ni loolu la waaw kon ni ñuy def mooy incha allah ah ñu jëm a ànd ak yéen dalal leen dugal leen nag biir ngaay bu ñu demee wan leen ruq yeeg ruqaaj yeeg lépp li nga xamante ni bii am na fi ca maam yaag ba suñu jon yàlla tey ba nga xamante ni bii képp koo xam ne daan nga dégg ngaay daan ko dégg de noo rek nga mën a découvrir ngaay nag xam ni ngaay mu ngi nii euh, kon waaw waaw suñu yaay yi nga gis gisoo leen ñu ngi travaillé nii à sax waaw instant bi ñu ngi wékk nii may ñu ngi liggéey ñu dem nga xool leen nga xool ba xam ni ñuy liggéey maa ngi fi ngi ci jàmm ñu ngi alhamdulilah. kon yéen waaw ñun ñooy defar aar yi. Ah. waaw. lii moom da ko jàng wala da ngeen jékki-jékki rek euh, créer ko seen bopp. maanaam lii suñu baaxu maam la. Mhm. dañoo jékki-jékki rek. Mhm. yor suñuy puso. Mhm. di travail maanaam nu mu gën a jubee. du nu rëdd sax suñu loxo rek lañ koy rëddee. Ah, seen loxo rek yéen doo leen ko dessiner. déedéet léegi sax lañ ciy jël dessiner waaye daawuñu ko dessiner ba fi ne li ñu ñëw nii kenn dessiner wu ko. yow da ngay mu jub waaw à rek. da mu daal di juste. waaw mu daal di juste. Hmm. tudd point bi. Mhm. moo tudd njaago bi. ah lii mooy njaago bi. Ah, hmm. moom moo ci gën a jafe. waaw moo ci moo ci gën a jafe ndaxte dafa am ëllëg comme ëllëg. Hmm. bi ñuy bàyyi. waaw noonu la maanaam bu fekkee ne am nañu daal bu nu amee départ dañ ciy faj suñuy soxla dañ ciy liggéey dañ ciy suturoo ndax sunu baaxu maam la dem na ba ci daali ngaay dem ci andu ngaay sunu maam nag moo nu ko bataleel ci la ñuy dañ leen ko jàngaloon ba ngeen di nekk ndaw. maanaam bi ñuy ndaw leen ko jàngal sunuy maam fi ne andu andu bi may jógee dakaar fa laa juddoo yaroo fa bi ma ñëwee fii dama koo mën. di ko di am na maa defar am. ba mu normal ma lakk mu xonq cooy daal lii itam am na jigéen ñoo xam dañuy ñëw daal sunu góor ñi defaree jox ñu ñu ñëw moom la sunu maam ba tale léegi wëñ mm-hmm. moom dañ koy jëndi bu ko jëndee ba ñëw mm-hmm. da maanaam dañ ciy liggéey def ko ay couleur couleur comme nii rek comme nii bu bu ñu jaxase di liggéey maanaam daa ci leen di suturoo point yi dañoo yi waaw point yi bari na. Hmm. ndax kii taatu peñe la. Ah, bii taatu peñe la bii taatu peñe la. bii nag. bii ah. ñu ngi ko tuddee sig sac dongo ah. la. bii tamit. taatu super la kubéer. waaw. waaw waaw. xam booy ndékki. fi kaas. waaw bi. daa teg kaas mu wër <laughs> <laughs> Oh, mairie nag macha allah macha bi lan lay doon. tissu bi. Hmm. mi doon vaar eh, bu nekk. waaw bu nekk mën na doon vaar. man mhm. naa doon perkaal. Mhm. mën naa doon tam malikaat. mais bu njëkk ba yan lañ ci doon def. njëkkoon mhm. maanaam malikaat ak vaar rek la woon. bu njëkkoon. vaar rek waaw léegi sax piisu góor ñi. nu mu tudd. am na yoo xam ne waaw léegi dañ ko ciy ñaw. ah rafet na de macha allah ma eh. ne ko rafet na trop. waaw gis ngeen nag euh, li nga xamante ne rek euh, moom mooy wàllum dàll yi ci ngay mexe ak wàllum yére yi broderi à la bi dara dootu leen ci umpati waaye nag euh, dañuy ñëw tamit nag xamale ñu ak dëkk bi histoire dëkk bi góor gi toog nag moom moo ñuy waxal li nga xamante ne tuuru ngaay mexe fan la jóge ak kan moo ko sanc ñu déglu ko. li waral turu ngaay bi soosee bi ndikkee ba rey fi ak tëll ñu di ko wax ngaay dañoo dem mexe laaj ki nga xamante ne moo fay demel ñu mu koy dëkk ak muy su ma sañoon day su may dëkk yi da ngeen di may fa ma euh, reye ngaay ma dëkk fa mu ne ko foofu day may naa ko sama ko nangu kon da ngeen di waxtaan ak yaafali caam xam naa yaafali caam mbokk Moustapha Caam la mu ñëw laaj yaafali mu ne ko damel ni ko damel ni ko bu la bu la foo dëkk nga dëkk mu ne ko foofu laa bëgg dëkk muy moo tax ñu naan ngaay nag euh, histoire ngaay euh, dafa doon la xay lii dañuy wax ne histoire ngaay boo ci de wax maanaam version yi dafa bari su ko defee nag Euh, kajoor dafa yàgg am histoire ndax nee naa la kajoor mooy mooy xool bi nga xam ne moo nekk ci biir kajoor te kajoor jàmbaar yi fi nekkoon démb ak barki démb dafa doon jàmbaar yoo xam ne jigéen nañ dëkk bi lool bàyyi ñu dëkk fi ndax su ma ci limee rek Lat Joor Ngoone Latyr Jóob demeel di kajoor 1842 la judd ci kër Amadou Yàlla loolu tubaab yooku bi waaye euh, historiens yi mag yi yi ci max la juddoo waaye nag nee naa léegi ci histoire ni histoire version yi dafa wari 1842 la judd kër kër Amadou Yàlla 1886 la daanu ci deqale te Lat Joor ay sita mi ngi fi ci ngay waaw mbaaxaan jom mi ngi nii fii ci boori gaar bi mbaaxaan siiri mbaaxaan a ko jur siiri mbaaxaan mbaaxaan a ko jur mbaaxaan Lat Joor a ko jur Lat Joor saaxawar a ko jur saaxawar madu saaxawar a ko jur te Lat Joor ngoone latt mi ko jur dafa sant faal lapsukaa bi ngoone jéey jur ko lapsukaa bi ngoone jéey moom na kajoor gii fanweeri at ak benn lapsukaa moomu leen fi ma tàmbali ci la yoon nag dafa am loo xam ne moo ëmb Kajoor ndax Amari Ngoone Sobel mi nga xam ne mooy premier damel di Kajoor Amari Ngoone Sobel moom na Kajoor gi fanweeri at ak ñett kon la moom Kajoor Amari Ngoone Sobel moom moo dëccee fu jógu jur dëccee fu jógu maa njóogu njàmbal faa la ko jur maa njóogu njàmbal faa maa njàmbal jawaan a ko jur maa njàmbal jawaan jawaan ñu ko jawaan ko faam yéeri njóogu nag ak tabar njóogu ak nguñu njóogu ak dëccee fu jógu ñu bokk ndey baay te yaakaar naa senegal senegal koo xam ne kii rek yaa ngi ci biir senegal fii nga xamante Kajoor am nga fi wàll. maaleykum salaam ñoo ngi fi ñoo ngi ci jàmm. sant jiite laa sant borom ngaay waaw yow yaa moom ngaay nii maa moom ngaay ah, ma ngaay cosaanam dafa yaatu sunu maam soose njàmme jiite bi mu jógee pakaaw dafa ñëw dal mexe waaw bi mu dalee mexe mhm. nekk ak sëriñ mexe mhm. ba may ko fa soxna léegi mu ni ko léegi dama laa bëgg may foo dëkk ah, loolu moo indi moo indi ngaay mexe léegi mu ni ko waaw moo indi ngaay mexe léegi mu ko dama laa bëgg a may foo dëkk mhm. léegi mu ni ko goral góor gi di gor ba am lu mat juróomi fan léegi kéwél gi daal di tëb mu ñëw mu ni ko foo yem mu ni ko xam nga kéwél mooy ngaay mu ni ko fa fa ngaay ma tëbe mu ni ko léegi fa ngaay ma tëbe yaa ko moom loolu moo boo déggee loolu moo tax ñu naan ngaay mexe xam nga ngaay dafa bari cosaan ah, xam nga bari na cosaan cosaanu ngaay nag bari na trop ndax Sëriñ Tuubaa bi fi ñëwee Baay Paate la fi fekk bi mu ñëwee fekk ko fii jàkkay murit nekk tey mu am feek moom ñetti fan ñu teeru ko teral ko ganale ko gunge ko bàyyi paate yor kolam ko rafet sëñ bi xool kool gi góor gi jox ko ko nag bi mu génnee mu ni ngaay ngaay fii léegi kol gi mu yor kaala gi mu yor bu ma ko joxoon ku ni mbàkke ni jiite ngaay ngaay fii ji moom mooy loolu rek ndax alazar yëpp fii la nekk kër sañ Touba gi fii la nekk jàkkay murit fii la nekk xam nga kon loolu yëpp cosaan la ngaay moom cosaanam dafa yaatu. léegi xam nga man moom su ma tolloo fii damay daal di kontaan lool téléspectateurs yi gis ngeen li nga xamante ne rek jot nañ leen ko woon euh, si émission horaire bi. Mm-hmm. Euh, ñu yegg see nag fi nga xamante ne rek moom mooy plat traditionnel dëkk bu ñu dem nag dañuy toggal li nga xamante ni rek moom mooy seen plat wu cosaan aada mag njëkk njëkkee ko doon togg kon nag tey yow yaa ñuy toggal plat wu ngaay mexe maanaam cosaan lan mooy seen plat cosaan. tey daal li la bëgg a toggal mooy laaxu bisaab. laaxu bisaab lan lay toggal tey moom lañ bëgg a togg. Oh, doo ko togg da may bàyyi ma togg. waaw léegi dañ lay dama lay wan ndugg mi rek nga togg. Mm. waaw d'accord mën naa ko dama dëgër fit nag de. waaw léegi aw andi woon ko. <laughs> laaxu kon laaxu bisaab mooy seen cosaan. waaw. mag yu njëkkee moom lañ doon togg. moom lañ doon togg de boo si buroog yëpp moom lañ lay toggal. Mm, moom lan ak lan lay àndal. ma siwo bee aw léegi xoolal mm-hmm. laaxu bisaab. Mm. dina am keccax dina am tamaate doom dina am géej dina am tamaate lokkati dina am bisaab bu wow dina am bisaab bu tooy dina am poobar dina am soble dina am kaani vert dina am kaani guana dina am kaani salaat dina am oignon dina am lii nag sangal la ak gerte noflaay moom la ñu boole léegi léegi est-ce que mag yu njëkkee yi nga lim nii yëpp da ko ci doon am boobu est-ce que guana amoon na ak kaani zone bi poivron tamit amoon na. léegi léegi mag yu njëkk ña moom ba ñuy ay kaani salaat amul oignon amul waaye keccox amoon na kaani xeeñ amoon na tamaate doom amoon na bisaab amoon na sangal tam amoon na ak gerte mag ñu njëkk ña bi ñuy togg loolu amoon na. Mhm. léegi bisaab bii nag tamit ci lay dem. waaw bisaab bu tooy bi waa ak wow yépp ngay boole. bisaab bu rank bii nii. waaw li nekk ci cin bi. waaw. léegi lan ak lan nga fi def. kànja. Mhm. tuufa ak yéet. ak yéet. waaw kon day am loolu. yéet seen laaku bisaab waaw waaw mu ubaat. léegi lan nga wax ma def ci. lii muy dëbb defal géej gi def ci am. léegi laafu bisaab bi soo leen amee gan ngeen koy togg wala. wala koy togg fii souvent. dinañ ko togg. Hmm. ci gën a bari sax nawet lañ koy togg nag. nawet ngeen ndax hmm, day faj si buru. day faj si buru. waaw ak ku doxee ba sonn ci àll bi ñëw. waaw. Euh, nan lan lan moo taxoon démb ñu naan nit dafa war a am kersa war a am jot kersa moom dafa baax ci nit. Hmm. ndax en général nit bu amee yar rek dina am kersa. yar bi fan la war a tàmbali. yar bi yar bi ci éducation de base bi la yar bi da nekk ak say waajur ak say mag ak say rak boo bala ngaa yaru da am kilifa bala ngaa da ngay am kilifa boo nekkee ak say mag ak say rak ak say yaay ak say tànta kenn ku ne nga teg ko fa nga ko war a teg. am loo jomba wax am loo jomba def xam nga foofu la yaru commencé boo amee loo jomba wax am loo jomba def rek di am kersa. léegi fi mu nekk nii ñu ngi dëbb nefitu bi. waaw léegi après lan mooy demaat si bi comme def naa géej bi. lii lii laa ciy defaat. ak tamaate bi. waaw dina ko jam bàyyi ko mu def loolu. kon maa war a bi. waaw toggal danoo bëgg nga togg. <laughs> awa te teen koo jambal mu gaaw. jambal awa mu gaaw. ana ba ci ba am day sekk am yëngale ko. am yëngale. léegi lan lan moo lan moo tax ñu nii. yëng ah kay. Ah, hmm? léegi lii nii moom xanaa boo boo laaxee du am du am ay donju. Ah. bakku la bakku bakku. léegi luy dem tamaate njamb bi ñëw ngaay mhm. boo demee ci dàll yi day mel ni demoo ngaay waaw dëgg la xooli fañ koy defaree waaw waaw damay ànd dem te ñëw dem ñëwee ma yëggalee reer eh, boo ñëwee fekk ñu pare <laughs> fekk ngeen pare de waaye yéen maire yi da ngeen pragmatique nag waaw demal te ñëw maa demal te ñëw am naa ñu sori fii loo sori mu la dàq ñaawoo su daan sori su daan sori man fii loo sori mu la dàq ñaawoo loo dëkkee fame go. Suma daan sori suma daan sori man fii la sori sori mu la dàq ñaawoo yàgg naa sori am na ñu sori ne fii loo sori sori mu la tax ñaawoo loo dëkkee ñu xeem ko nga bàyyi yow sa ginnaaw loo dëkkee ñu xeem ko bam xaali waaw fii nag sama gars yi comme ni ngeen ko gisee fii la ñuy liggéeyee der ñoom der yi fii lañ koy liggéeyee ba pare nag soog ñu koo indil ci atelier yi ñu mën cee defar daal yi nga xam ni fépp fu waay nekk ci Sénégal bi moom ngay mën a gis muy dàll yu rafet di dàll yu am solo kii nag mooy Adja Yaama moom moo fi nekk di liggéey moo équipe gis ngeen baaj yi ni mu demee. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen waa TFM maa ngi leen di nuyu bu baax gis ngeen ni ñu nekk ñu ngi fekk ci der yi ñu liggéey nii man maay Mariama Taban di femme tanneuse di conseillère municipale gis nga ko ni ngan fekk ma ci dara te may liggéey nii ah fii nag moom mooy première état bi ñu ko jëlee nii gis nga maire bi li mu doon def ne moom day day day day xoos goli moo koy xoos xoos gis nga xoos mu méttee teg ko ci gën di ko xoos nga ni mettee méttee alors bu ñu amoon machine yoo xamante ni moo koy mooy dindi karaw gi épileuse day gën a baax ci ñun ñu am bu dindi yàpp day gën a baax ci ñun mooy écharneuse waaye yooyu yëpp gis nga amuñu ko waaye nag ñu ngi sant yàlla bu baax di da di nekk di daan